soxoo doomu nday Fallou Ndiaye waaye mais lu xew seen association bi Pape Abdou Fall nekk ca bopp di président bi ñuy leen ñëw dañuy def rëy drapeau ay ministère des sports la ilaha illallah wa rasulullah ministre des sports Matar Ba xam nga ne ministre bu mel noonu dootu fi am déedéet ministre des sports mel ni Matar Ba dootu fi am waaye le 5 janvier nga wax le 12 le 12 5 levier cinq millions man damay ngeem sax damay ñëw Reug Reug am na problème Serigne Ndiaye am na problème Franc am na problème damay ngeem damay ñëw drapeau Ba le douze du yomb de